asalaamaaleykum alaikum, internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci li ngeen taamu du ñu seetaan ci info euh, émission palmarès nous di ñëwaat ak invité ñu xamee ko ci turu Ibrahima Rose Ndiaye président du mouvement De mandat de par le look de sa barbe Ibrahim ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum euh, soxna ñoo ngi lay fay euh, di la dalal jàmm di la jox sa yéeguwaay di la wax ñëw ci gi. ñëw naa si ngéwél gi Ibrahima Ndiaye tey nag équipe euh, askan wi info daal lay seet si fii sa douane fas si sa diwaan fas yéene waxtaan ak yow rek euh, ci wàllu palmarès. macha allah euh, soxna si palmarès quand on le dit ah moo tax sànq ma la ñëw nga ngéwél petit fils à Doudou Ndiaye Coumba Rose légende yàlla na yàlla suuf oyof ci kawam. fa nek gënal ko fi joggé jóge jërëjëf biñu yalla bolé ak mom d'abord parce que il nous a tout montré <laughs> yóbbu nañu fu ne ci hmm, vraiment kon donc on est né griot tout d'abord on est né griot artiste petit-fils d'un tambour major le grand tambour major du Sénégal xamné xam ne def na bicentenaire yóbbu na art fu ci aduna yóbbu ñu il nous a donné l'opportunité de de jouer euh, euh, au 50e festival par exemple euh, de Cannes que vraiment on était 50 batteurs. Euh, j'ai eu euh, la chance de rencontrer hein, beaucoup de hein, hein, d'acteurs de films. <laughs> j'ai cette chance qu'on m'a dit santat yalla bu baax vraiment non la du dos euh, magbam 14 ans nous de ci fu en 1991 Là, la de j'avais 14 ans comme donc vraiment fila football fila fowé fii laa euh, gimmee xàmmee ah fii laa fubale nawetaan kade cité ay numa di indi coupe ah senior ba noonu yàlla noonu la ma yàlla dogalee ma ma bokk ak Moustapha Meng l'honorable député maire Moustapha Meng nga xam ne ñu doon tëddandoo ni ñuy lal regroupement moo may fubal 10 man maa koy libéré boobu ku ne cité ay numa di nga am ak Kër Massar doo nelaw c'était des jours type mu doon sama nawle ma jox ko cër mu jox ma cër man nangul ko mu nangul mo mu respecté ma ma ko ñu donc vraiment la sama jeunesse après vraiment bi sama ñu comme ko ñu on n'était pas des des des des hommes engagés on était j'étais un griot que vraiment bu même bu amé politique wala mu am euh, de toute façon avant d'informer les gens il faut faire de l'animation donc il faut qu'il y ait la culture kon donc culturel boobu Don doon dund bi ñu fi jaar ci ci Abdou Diouf mu gën a màgg fekkee Je Ablaye Wade <laughs> pas engagé Bon, ma fayee ma ñëw tëggal la bu ma ngiwal ngiwal neex mais ñu dem nag ba ci bir, nag vraiment nag en 2015 parce que nag bu ñu fàtte ne Dekkal Ngor amoon na fi en 2008 Dekkal Ngor 2008 Maki 2012, mais deux mandats de par le look de ma barbe derrière le président de la République. Derrière le président de la République, quel nous sommes leader par un langage de vérité. Nous ce ci je euh, art dafa bokk culture euh, mais ni ni ni politique Mon nekk ci yow léegi de des la politique ci wàllu politique lan palmarès bi. waaw muy y a la relève de Doudou Ndiaye avec Serigne Wadane Rose Ndiaye un fils direct du du vieux du Ndiaye Coumba Rose bu nekkoon Italie ñëw def la relève madame Adja Si mi la directrice de la place du souvenir jox ko fa place depuis trois ans mu fay répété ma koy siyaare waale di siyaare waale Manick Sène ah son secrétaire kon donc ba tey ñoo ci aar bi c'est le sang sunu deret la on est fier d'être des griots ay doomu buuru géwal lañu bat géwalu Ndakaaru Ndiaye bu ñu koy wax doomu mois, cinq cinq sama maam parti yaay Mbaye Dieye Faye sama nijaay la Khady fay mi sama yaay ak wii seng Faye mi jur Mbaye Dieye ñoo bokk sama yaay cousine u euh, Mbaye Dieye la magam la du ndjay Rose delu jur sama bay ma sant ndjay di bete bete di doomu buru géwël kon donc nak vraiment biñu joggé ci lolu on était on est venu pour s'engager dans la commune de Kermassar parce que quand on quand tu dis que né bi nga amé 14 ans nga fi dëkk donc tu maîtrises Kermassar Massar <laughs> defoo fi lu ñaaw waxoo fi lu ñaaw ñun suñu mam lu ñu fi bayil moy social motax tax ma kër 20 ans la def suma keur goro nek suma baye nak di vaillé sa mbab nag c'était c'était un un un sous-officier dans l'armée bo demé sama keur baye do tok do taxaw lolou yalla moko def ci ben jabar lam machallah muy sama yaay ki lem beaucoup yalla na gudd fan kon donc ñoo nga ngeewal bo fa demee do tok do taxaw mais tey jii ñu ñu dem dëkk Tivaouane peul ñun ñu tok man ma toog Kër Massar basé wu ak sama ak sama ak sama famille kon donc keur Massar lu ma ñor la

Très Faye que je salue de passage que la coordinatrice, Je ànd ak moom daw ak moom fu je suis ak hein, bouger un peu mais tout vraiment ma gère gérer ma base avec la Cogère gère Nous, ba moment vraiment le maire jox assainissement avec quatre personnes je balayais 135 quartiers li may wa waa Kër Massar dinañ ko dégg avec quatre personnes il y a des témoins il y a les vidéos il y a les photos qui sont là parce que dama fa mon contrat mu jox ma assainissement assainissement moo ngi lonk ci service technique le DG Vieux Diop service technique kon donc foofaa ne qu'il me respecte mais man lañ jox assainissement mais trois booy yooyu dama leen di gunge damay bale damay désensablé rente waa service technique nous avons indil ma ay camions parce que bobu mang koy duggal coin et les habitants di talibé ngi set mais ruq ngi tilim may ña camions, mairie ñu jox ay car comme ça ay camion ñu mën mako donc Kër Massar j'ai balayé les rues de Kër donc ñu dem ba moment euh, euh, mu euh, vraiment l'inauguration de AIBD mu vraiment mobilisé ci li ci ci bon entendre et salut Nop amul kubéer commune Bouna, ne jox nañ la deux 250 milles CFA la ay t-shirt dañu mobilisé a dem nous mobiliser woo le coordinateur de la mais Mohamed Sagna que je salue au passage mon frère mon n'est que le chef de cabinet du maire il l'a saché d'accord d'accord oui non ba pareil def loolu nous ñu dem mais après, amul am pour man le département le département le man ken du ma ne euh, limite mo ngi ni fi fi ngay limité wu. léegi monsieur Kameng, mom euh, mobilisé wul euh, te jox nañ ko 250 000 ak ay t-shirt nga wax. mobilisé wul léegi nag ñun ñu am fu la dem and ak le DG Abdou Karim Sall sa jeunesse ñoom Mamadou Ndiaye ñoom Ousmane Baldé. mais non ñun vraiment en tant que ñun ñi ñuy xeeb ñu yor base légui tay di mais ñun amuñu carte d'invitation pour yegg ñom fa ñu yegg man mënu ma xam ndax yegg sina wala yegg de toute façon Kër Massar bu fekkoon dafa am délégation yu fi joggé à AIBD man dina xamné ne wa Kër Massar dem na mais ñun ko gère ñi ko dem and ak la jeunesse de de de Grand Mbao du du DG Abdou Karim Sall bi ñu ñëwé y avait des problèmes. légui yow nga don and ak moom jéki jéki benn def sa mouvement. non fofu lay ñëw duma jéki jéki jékki parce que AIBD boobu mooy ni problème yépp <laughs> le 7 la woon de décembre mm-hmm. mu dem ba le 17 décembre mu woote réunion de la COJER mm-hmm. <laughs> mu woote réunion bi ne mais non nuyuñu 17 heures la ñëw ñun 15 heures on est ponctuel moom 17 heures 18 heures la ñëw ñëw vraiment yekkuñu lu mel nii xeme. waaw tek audio yi ko neex sama audio sama wax neexul audio mo message archive la lay wax lo xam da daa keur ma Massar ba ñëwaat ma def ci vidéo vidéo ba def 9 minutes dem di dox soplu ko am ñaari tank di dox ba dugg ci téléphone président de la république Macky Sall. li ma la histoire la dafa fekk ne tey dama la wara netali parce que no émission bi tudd. palmarès. kon donc sama palmarès moy fofu le coow li tàmbalee foofu laa tàmbalee gëm sam bop mu woté réunion bobu ne je donne la parole à personne. dafa ne je donne la parole à personne très franchement ma djub def ñaari pa, mu ne ma noo yow du wax ak yow ma ko waaw do wax ak man mais di nga dégg comme ça bëggoo nak ñu wax amul solo djibul grawul euh, euh protocole bi il n'a écouté personne rôle dictateur la def fof may ma ñew tok sama kër def sama vidéo 9 minutes bu am solo xamako non euh, je suis pas là pour une personne je suis là euh, parce que euh, ni fonctionner système bi baaxul. mooy lan nga def ci commission yi lan nga def ci culturel budget culturel on a notre budget est de presque 1 milliard et quelques. <laughs> Kirmoussar est une grande commune mais lan nga def ci commission yi lan nga def commission waxal askan wi liñ fi liggéey bul indi liggéeyu président de la république 20 km de route yi ak euh, adjectif 20 km de route yi mi def nga ne yaa ko indi wala non non non président moo ngi moo ngi moo ngi jéem moo ngi liggéey mais yow lan nga liggéey avec l'acte 3 de la décentralisation rek tu pouvais faire beaucoup de choses mais avec l'acte 3 de la décentralisation il m'a fait un arrêté c'est pour te dire que ne euh, euh, le Sénégal non attends euh, donnons à ce qui appartient à César César à ce qui appartient à César nit pas liguey da ngay président Yatal, na ba fait l'acte 3 de la décentralisation il m'a fait un arrêté portant délégation de pouvoir en la matière de coopération décentralisée j'ai amené la francophonie j'ai amené la francophonie parce qu'il m'a fait cela il m'a donné un une ordre de mission et, j'ai les possibilités de, de, partir voir le président de la francophonie et vraiment de demander la part de la commune de Kermassar. Je l'ai fait et, on est en bénéficier. La mais oui, avec, avec cette arrêté-là. Et maintenant, pourquoi il ne pas élargir, me faire, me faire l'arrêter et me faire une, un ordre de mission et me dire va créer des jumelages et partenariats en Europe c'est la commune qui, qui, qui, gère ça. C'est avec l'acte 3 de la décentralisation. Tu peux, tu, peux me déléguer parce que tu l'as déjà fait, c'est un arrêté. Tu as pris de tes pouvoirs, tu m'as donné. Mais maintenant, il y a, y a, y l'ordre de mission qui, qui, va suivre tout cela. Quand j'y vais en Nantes, par exemple, pour parler avec le maire, je viens pour lui dire que le maire m'a envoyé. Je donne l'arrêté, je donne l'ordre de mission. Et il sait que là, c'est un gars qui est là pour créer des conventions, des jumelages. Euh, euh, waaw euh, dynastie Mengen la quoi sama rakk laay embauché Lamine Meng ma ko embauché. mais si ñun dañuy le président parce que maintenant on est leader dañoo am base. le ça Kër Masar nag Kër Masar ak régime Macky Sall bi problème yooyu bëri na fi trop parce que Aïssata mu député bi woon Aïssata Dia. Hein? Euh, Moustapha Meng yow euh, ngeen du ngeen déggoo et je les crache toutes par respect Fatam bi du dama koy cracher na wax lan la fi def bi mu nekkee ministre. parlons bien on n'est pas là pour une personne <laughs> sama yaay Aïssa Diack je respecte beaucoup Abdel Niang maa lay monsieur le maire son fils qui est là avec son mouvement Jëg Jotna je sais pas le nom Jëg Jotna pour defar Kër je le respecte de passage je le salue mais lan la fi honorable député maire def honorable député Aïssata Dia bi mu nekkee fii Kër Massar lan la def Fatou Tambadou lan la def Moustapha Mbengue nañu wax li def na wax ak 100 millions yi ñu koy waxal ci ci marché Aïnou Mady bi <laughs> na tontu loolu. Euh, euh, euh, y' a trop de problèmes si c'est bon pour pour Il sa xarit jëlee ko Europe ça me fait mal on n'est pas là à 39 jours pour vraiment dire di di wax ci waxi on est là pour la réaction du président Macky Sall mais deux mandats par un langage de vérité le président woma trois fois wax ak man ma wax samay wax mu xamal

De la woo non parce que mais vous ne faites euh, pas euh, électoral il dafa watch. Hein, présidentiel mais dafa faut bi ci référendum il dafa wàcc. mais Kër Massar ne gagne pas parce que Moustapha Mbengue est là il faut que ça soit clair Kermassar, nous ñoo bëgg président Makisal. al plan, yi fii un peu. alpulaar yi fii la ñu ëpp mais itam ñoo ngi leen di commencé weddi parce que li ma la laaj tontoo ma dama seen parrainage dégg naa matul da ngeen tubbu ci ay parrainage jaamur. mais matul tey jii boo boo boo boo boo quand même non matul mënuma ko gëm xam nga on a dit le le dynamique. dynamique mooy cogère bi mi ren di woon sànni leen ñoom Gisèle Faye consort yooyu c'est c'est très grand responsable.

mere nan la yor nga sa xaalis sa 200000 ñëw nga jox nga leen ko d'accord pare na nan la bu nee ci man gàcce bi nag. nan dund ak askan wi dëgg te yàlla tax nit ki bu demee ci man gàcce bi dafay am lu muy yëg même day yaakaar ne sax le président est devant lui wala le responsable tel est devant lui parce que li koy ji la. ji leen nan nan nan nan wàcc ci base bi wàcc waa seen bopp bàyyi vite tente yi bàyyi yëg sa bopp bi président moo la def li nga doon. doona woon dara Moustapha Meng tu es venu à Kër Massar sans rien. nan waxante dëgg bi ngay ñëw fii la ñu fekk ñu ne euh, les stades de l'amitié les parcelles dañ koy toxal Abdou Diouf toxal leen fii bi ngay ñëw fii la ñu fekk ñoo la dalal baax. tu es riche comment man immigré bi mi bi muy demee bi mu nekkee maire la soog ñam avion. mais immigré la. nan waxante dëgg Kër Massar suufu Kër Massar ñoo ko def maire ñoo ko def député. donc euh, euh, vraiment dès lors César a ce qui appartient à César quoi kon donc parrainage bi def nañ ci suñu 4 4 ans, parce que li tax mooy les mais ñun nous lañ récupéré 1 il 17 y' a un problème Joseph Nden il fi fini, mais na 1 ba 17 1 15 tonnes de riz avec 5 machines de céréales mon mu woo leen Moustapha mais nga gars soxna yi di ko ko yëgali mooy leen dem leen ngeen euh, rangé wu ci derrière Wuli Matandoo yi adjoint au maire soxna yi ne ko non ñun xamuñu Wuli Matandoo par respect ñun dañu pour yëgal la Joseph neen chargé de mission mu ngi ñuy may nangam yow ñëwal gis nga jour beau. dafa leen ne carrément bu fekkee ranger wu leen ci wulu mbatandooyu ma delloo 15 tonnes ceeb yi ak 5 machines comment il l'a dit c'est comme ça qu'il l'a fait demal un ba 17

Euh, yéen waa APR lu su li problème ak euh, Ousmane Sonko parce que gis nañ Ousmane Sonko daf leen di frustré. non Ousmane Sonko xalé la président du moromam lolou na leer na leeral mom liñ koy waxal man vraiment euh, Sénégal buñu taylé tayle suñu réew mi quoi <laughs> président Macky Sall il est efficace il parle moins et il travaille beaucoup kan moko sédal le président de la République notre excellence euh, euh, euh, président Wad mon conseil séddeel si équipe premier ministre mais si Le Sénégal, sax Sénégal projet large Quand donc bi ne ko beddee sànni ko dafa des gëm Sénégal parce que ci le la avec la PSE

mais am na loo xam ne yemul fii institution bi dañ ko bàyyi mu liggéey liggéeyam le président il est le président de la république. Mm. non jàmbaar. l'homme propose Dieu dispose il y a pas de coïncidence mais bu ñu fi nekkoon di doon ay cent et quelques candidats fan la Sénégal di jëm ñoo xam ne tekkiwuñu dara bëgg doon président de la république ñoo xam ne am ñu sax xaalis dañ leen di subventionné pour ñu ñëw taxaw jëmmal seen bopp attention là Sénégal le président est en train de bâtir le Sénégal. Euh, ñu gis ni aussi benn clip vidéo bu def feuille flamme ci ci ci ci YouTube bi ah kër gi ñëw ne carrément maki entre guillemets say saay la yow ban gis-gis nga am ci lool bon te lool tam mu nek même pas deux semaines ñu am 1 million de vues. Sénégalais dafa dañ kumpa fofu lay tambalé <laughs> Sénégalais fa dañ kumpa 1 million de vues ça ça veut rien dire am nañ un million de vues mais gars ñu ngi leen cracher la la façon de donner vaut mieux ce que l'on donne mais nous quoi koy warna rafet c'est <laughs> du sen morom la <laughs> non non le mouvement de mandat le mouvement de mandat le 24 février les dire bu ma bu élire le président de la république dès le premier tour ba pare ci lay jiix ci lay matal. le 25. il sera un mandat pour Moustapha Meng Moustapha Meng dégage mais yeggaguñu foofu. ba tey dem nan parce que déjà c'est des bacheliers Jang nañu ba yor diplôme bu len jappalon ba tey dem nan té la mairie pouvait le faire kon donc vraiment ma len di sante ci opportunité bi ngén ma may vraiment kontaan ci trop. Euh, di wax rek ne Kër Massar moo ñu ñor di wax ne. te il est temps mu nekk département non c'est déjà fait sax. loolu bu ñu yàlla defee jàmm bu président amee deuxième mandat rek ñu daal di koy dóor mu daal di am trois communes wala quatre communes am nañ ci yaakaar te parce que Kër Massar moo toll noonu mais di wax rek ne Sénégal addina di ñaan yàlla jàmm yàlla na jàmm am ci réew mi réew mi jàmm rek vraiment euh, moo fi xaj. li fi sunu maam yi bàyyi ay borom Touba ay maam Alaaji Maalik ah Bukunta Njaasaan Cheikh Canaba Canaba yi kon donc Njaasaan ah, laay yéen kon donc ñun ci yar ak teggin ak teraanga rek lañ ñu la ñu yar kon Sénégal may ñaan jàmm di wax ne nag vraiment président deux mandats ci campagne présidentielle bi deux mandats ne sera derrière personne on est clair, parce que deux mandats d'ailleurs le bépp mouvement depuis man depuis 2000-2015. 2015, campagne. je rentrais à YouTube prendre les réalisations du président Macky Sall les faire des vidéos ça y est dans le net ça y est à YouTube quand donc vraiment on est engagé président mu ngi liggéey am yar amna y teggin a que Sénégal vraiment émergé. Euh, que Sénégal vraiment émergé il lañ koy di euh, rek euh, ba benen yone inshallah équipe askanwi l'équipe émission palmarès daat fi fekk ci invité Ibrahim Rose président du mouvement de mandat de par le look de sa barbe Du côté, bu baax ci lum télo fi ci kërëm diko ci internet invité émission palmarès fii ci askan